Euh, bu ñuy analyser la défaite de Benno Bokk Yaakaar am na ñuy dem sax ba naan euh, Macky Sall moo nekkoon directeur de campagne bu bu PASTEF. Ah, Macky Sall dafa aménager les conditions pour que PASTEF euh, mën a jot ci ci ci nguur gi Macky Sall dafa lâché son son candidat Amadou Ba dont le parti des gens ont manœuvré pour fair perdre le candidat moo tax ma ne la am na wax boo wax boobu c'est c'est c'est c'est boo ko waxee. Eh, conséquences yi liñ ci mën a imputé dafa bari nga ne yow Macky ci Macky ci Macky Sall ci li mu nekk loolu nga nekk bu ñu toppee wax bi ñu jàpp ne Macky Sall la lâché son candidat Macky Sall n'a pas soutenu son candidat est-ce que mën nañu conclure aussi à que yow Abdoulaye Seydou Sow posture bi Macky Sall nekkoon par rapport ak candidat bi man posture boobu nga nekk. mais man xam nga man dama man mën a xam mooy Macky Sall euh, moo ma jàppaloo Amadou Ba. bu la ko bàyyi loo da nga koy bàyyi moo ma jàppaloo Amadou Ba ba ma ko bàyyi loon ci wax waxtu boobu ma bàyyi même parce que même Amadou Ba bu ñu ko nee bu ñuy tànn entre Macky Sall ak Amadou Ba mën naa topp Amadou Ba mooy man góobu ma dara man du ma ànd ak nit depuis des années ma ànd ak yow te ma xamante ak yow quel que soit les problèmes je l'assume et je suis avec moo tax ma ne la ci président ci posture man bi ma woon tous les jours président mosul wax nañ bàyyi Amadou mos na ma ko wax benn yoon. bi ñu ñëwee altine mu ooma ma ñëw. ah bon oui je mu ñëw ne ma ab ah, mu wax li mu reproché wax li mu reproché Amadou ne dafa bëgg ñu changer candidat ma wax ko suma avis. lan nga ko ko li gënoon mooy ñu continuer ak Amadou mais man loo mënta décider nag président danaa ko topp de danaa ko topp loo mënta décider danaa ko topp waaye li gën mooy ñu def nii parce que d' abord moo ko désigné woon deuxièmement li ngay wax fépp ci défaut ou bien ci li mu def xamoon nañu ko donc. ñu dem lu luñ ci góobee ñu gar ko ah, moi je vais consulter les autres et je vais prendre la décision au secrétariat mercredi incha allah loolu la def bu mu ñëwee secrétariat mercredi wax na am na lu ko naqari lu bari mais ñëpp nañ jógaat dem jàppale amul ba man loolu laa def donc man bu lu ñuy wax ne def na lii man lu nekk nañuy wax ak yàlla xam nga fii ku ci nekk dañuy jàpp ni politique lu la neex nga wax ci lu la neex nga def te yàlla amul yàlla man gisuma ko xanaa ci téere damay wax toujours suma mbokku Saloum Saloum kaf naa ci téere ñi sant Bilane ou bien ñi sant Ndaw la mën a am mais dama jàpp ni politique aussi wax dëgg cee ca man musuma li ñuy wax yépp président def na ko ou bien wax na ko ak nit ou bien nee nañ jàppale gisuma ci danay dégg nag ay président jàppale na gars yi ñi nii recevoir na leen lii awma ci dara lu ma leer te may mën a su leeroon su ma leeroon ni président def na ko man danaa ci wax président directement danaa ci wax sénégalais yi dégg mais man président Amadou la ma mës wax benn yoon boobu la ma wax ak benn altine mu recevoir ma ne ma lii laa bëgg a def ma wax ko xalaat mu ne dinaa déglu ñeneen itam te jour boobu mu may recevoir recevoir na Mamour Saleh si jour boobu mu gis naa am Omar Sarr toog gis naa aussi Benoît Sambou toog ñooñu ñëpp mu war leen recevoir te si jour boobu mu recevoir ñeneen lundi ba mercredi mu recevoir mercredi mu ne waaw sama décision bi ma jël moo nañ continuer jàppale Amadou Ba secrétaire national dafa nekkoon ñëpp loolu lañu jël. mais est-ce que man dégguma leneen defloo ma leneen waxloo ma ce que jàppale bi war pour le candidat Amadou Ba. est-ce que def ngeen ko. ah man de man suma akulaay taalaaya lépp lu nga xam ne def naa ko war nañ ko def def naa ko ci ci waxtu bi nag xawoon na gàtt mbir mi yàgg nañ fii di xaar décision di par loyauté par engagement il faut que ñu man mënuma woon nekk mënuma et loolu mënuma ko woon concevoir ma nekk ci dara te président Macky Sall nekku ci. loolu mooy sama position et sama position boobu je n'ai jamais varié. parce que da nga ne loolu bokk na ci lu nga xam ne yàq nañu xam wax naa la départ. lu bëri lu ñu yàqal mais loolu tamit ah posteriori bon c'est vrai aussi loi si bi euh, président nag man bi ma ko waxee suma xalaat xam nga la ma tontu mën naa la ko wax tey. Mm. et ça c'est pas une confidence c'est pas c'est ma ne Ablaye li ngay wax nii argument la pour suñu parti argument la pour suñu coalition argument la pour ñun ñii mais Sénégal moo war a nekk au-dessus de tout ça et war nañ sóoraale quel que soit ku gagné. comment laisser un pays apaisé si ñu bàyyi gars ñi en prison quel que par ailleurs ce qu'ils ont fait il y a une grande partie de l'opinion aujourd'hui qui ne le comprendrait pas et quel que soit celui qui va gagner on laissera ici un pays en morceaux donc cette loi d'amnistie je vais l'assumer même si je suis minoritaire dans mon propre parti ou dans ma coalition Sénégal on doit mettre le Sénégal au-dessus c'est la dernière phrase que le président m'a p mais le seul regret que j'ai j'ai pas j'ai pas bien combattu cette loi-là ça c'est mon sentiment personnel. donc waroon combattre ardemment. pour moi il a quand même quand même euh, cette loi n'était pas c'était c'est politiquement électoralement elle a beaucoup pesé dans notre défaite te moi je ne pas en combat où où je cherche les éléments pour me faire battre. mais nga ne sànq président dala wax lu am lu def te yow te xam ne xam ngeen ko lan la la wax. lu am lu def non man président posé na acte yi Amadou wax ne moom euh, Amadou moom la. nga ne te moo ko def. waaw loolu la wax dama ni xam nga man bëgguma ñëwaat sur des détails la li moom ak Amadou Ba je crois que ma a ay te là-dessus dans l' analyse mooy am na lu xew seen diggante lu nga xam ne ñun nii sax li ñuy président di wax am na lu des li ñuy Amadou di wax am na lu des kon ñoom ñoo war a clarifier loolu ci vraiment si décide de le clarifier. mais moi je mais mais bi mu la waxee daf la dafa daf la convaincre. non ma xam nga man je lui ai dit man ma ma ma position était claire man président Macky Sall lépp loo nekk ci loolu laa nekk mais avant ngay jël position nag danaa la wax lépp lu ma xalaat te wax naa ko li ma xalaat et président il sait et tous les collaborateurs du que en tout circonstances j'ai dit là au président ce que je pensais être la vérité et de laay ñaanal président bi fi nekk mooy mu amee ay collaborateurs yuy wax en toutes la vérité. parce qu'il y a beaucoup de flagorneurs quand c'est chaud là tu ne les entendras plus